loolu gis nga boo demee ci internet bi ñi lay njëkk a critiqué ñoo lay njëkk a wax ñi lay critiqué suuf di bind di bind li leen neex bu nu paree ñoo lay njëkk a wax testé maire bi ba xam maire bi ban façon nit ndax li muy wax na mën na ko mën na ko waaye bi maire bi ko ko testé xam ne testé nga testé nga kàmm Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV

asalaamaaleykum mbokk internet bi Sénégal 4 TV amat nañu mbégte ak contentement dik ak yéen ci émission bi ngeen tanal seen bop di léppay leer léppay leer doxantu tay ba fi ci diwanu Yarax set ci pis lu yaay boy bo xamni bo boobu ba léegi dafa raron gëjë na feñ lool ci internet ci internet bi ñëpp doon ko laccé euh, mama Soxna aw Fall ni lay nuyu di la ziare tay tam di la jox sama ci way waaw ma leen di fay sama doom di leen nuyu lu bare bari bari bari bari di leen sant yeen ci sant waay ci bi kër gi. defena ni yi fee yi bari nañu boobu ba léegi internet bi gars yi foo dugg ani mm-hmm. maman awa ani maman awa am na sax ñu doon laajte ndax da ngaa voyage yi mm-hmm. mais kon voyage yi woon maa ngi fi woon demoon naa tuuti voyage nag. Mm-hmm. waaye kon defe naa ne ñoo ko déggandoo soxlay jaam ñi boo ci nekkee léeg-léeg dootoo amatu jot. Euh, kon daal yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo maman awa Fall ngeen koy comprendre rek xam ne ci yittey jaam ñi rek la nekk. Euh, maman temps yi suñu dëkk dafa am benn série boo xamante ni moo commencé di daw mu ngi daw fële ci télé bi ñuy wax euh, Sen TV mm-hmm. te équipe de production bi ñuy wax Pikini production ñoo ko produire mm-hmm. ñu koy tuddee Madior ak joor mm-hmm. li ñu ci intéressé nag ba tax tey ñu ñëw di ci séq ak yow waxtaan dafa am benn fait bu am ci film bi mooy ki nga xamante ni moo di yaayu euh, Dior dafa demoon ci seetkat mu seetal ko xamal ko ni ko ay gàllankoor mi ngi ñëw ci yow pour nga mutti ci faaw da ngay sarax saraxu bëy ba limal ko sax nan la wara défé sarax ba mais bi mu jugee momi tamit mu gis ben euh, càmmiñam mu wolu ko ba yëkkati bëy ba jox ko niko saraxel saraxeel dem saraxoko mm. ndax dafa dem ci dibiteri ba dal di koy <laughs> daal koy jëfandikoo mi mais mu mel ni ñàkk saraxe boobu mu saraxe am na lu mu def parce que lañ ko waxoon mujj na ko dal ndax mujj na accidenté mm-hmm. kon dafa mel ni li ngeen bi yeete yéen chaque jour que jëfee di wax ci wàllu seet ak wàllu génn sarax dafa mel ni ñoom tamit ñu ngi koy a ci seen film instant bi bu baax comme ni nga ko waxee ah, maa ngi gërëm man ñi nga xam ne ñoo joué film Madior Dior Madior Dior bi mm-hmm. ah wax dëgg yàlla muy film bu am solo mm. ni nag dëgg yàlla euh, film bi lañu ciy ñun moom lañ dund bi société bi. dëgg yàlla ñu ngi ciy joué le rôle bi am solo dëgg yàlla. Mhm. maa ngi nuyu au passage ak ñi ñëpp ñi nga xam ne ñoo koy seetaan. Mhm. ndax fii bu am solo la. dëgg yàlla ndax ci li li dund ci société bi rek la ñuy waxtaanee. Mhm. mooy li ma lay wax rek sëñ sëñ bi chaque jour. Euh, li may wax tout le temps ci internet bi def naa nu tey laaj ci ma sa wax. yàgg naa di ci wax lu bare bari. Euh, parce que li war ci jëm ci wàllu euh, seetlu ak wàllu wàllu wàllu sarax. nee naa la sarax day day fànq dee mas naa ko am la sax day fànq de nit ku ne war nga góorgóorlu ci sa mbir bopp waaw saytu sa bopp xam nga yàlla dafa bind am na dafa bind ay doomi aadama def ko ay pàcc soo seetloo jaaykatu gerte ba nga jaay gerte heure bu xëy ci dem loolu fan la ko yàlla dëj yàllaay programme ñi ñi ci bureau ba heure bu ñu xëy dañ dem ci bureau ba yàlla fa la leen dëj hmm. setkat yi noonu lay demee fa ñu ne dafa seet ci loolu lañ yàlla foofu la leen yàlla sédde ca la leen dëkk ca lañ dañ cay seet ok ña def gàllaaj ña nga toog def gàllaaj fa la leen foofu la leen yàlla féetale ña nga ca toog ña def uude ña nga toog ci uude yi ku ne am nga pàcc pàcc pàcc pàcc naa ne programme yàlla moo ëpp bu de mhm. boo seetloo sur le monde entier ku ne rek am nga foo xam ne fa la yàlla féetale ngay jaay màtt bi nga jaay màtt kon nit ku ne am na lu ko yàlla may bu kenn xeebal nit ki lu ko yàlla may lu ci wàllu gëstaan gisaane lu mhm. ci wàllu sëriñtu ci wàllu gànnaaj dafa am solo ci doomi aadama nit ku ne war nga boo toogee benn weer ñaari weer mhm. nga dem sëy sa bopp xoolaat sa bopp xool yan sarax nga war a génne bu sa xool sa xel gëlëmay mhm. bala nga jaaxle loolu war nga mën a dem saytu sa bopp dem ci wàllu seetkat ñu xool wax na sarax sangam ak sangam nga génne soo gisee sa boo joxe sarax yooyu da ngay bu dee ñaan loolu da ca war a am sarax ñun da war a def ñaan boo ko defee ñaan dañ ci génn nga def ci ñaan génn ca kon seetlu def naa ne am na solo ci nit ndax boo xooloo film bi ne mu demee mm-hmm. et pourtant wax ko ne ko mm-hmm. sarax tàng sàngam boo ko am gàllankoor am na wala am mm-hmm. effectivement xëy na kañ ko jox ma matal rek ndax bañ ko joxee ne ko yow itam defaral sarax ta kooku wóolu kóolute la effectivement nit bu ñu la wóoloo war ngaa def da tax ñu wóolu la am na solo lool waaye moom dafa def ko def def ni ko neexee ba gàllankoor bi dal dal ndaw si donc it am na ci pas de responsabilité loolu tam yeetaange la ci nit ñi nga xam ne dañu am qualité di teg di teg ay mbir ci seen loxo ah mm-hmm. kay loolu ñaar la ñaari pàcc la maanaam nit yi war nañoo bàyyi xel ci seen wàllu bopp mm-hmm. di say seen bopp ci wàllu seet mm-hmm. bu dee am na sarax yu ci war a génne ñu génne ko ca wa illaa yaa xam ci ndox ngay seetloo yaa xam ci kurus ko borom kurus nga dem yaa xam ci borom pétaaw nga dem ak foo ci mën a dem nit war na saytu boppam su ko defee ñu la yow diw tey ngaa génne sarax tàngam sangam sangam mm. tëggu sax sarax da koy ibi nga tëggu lool foo tourné do am sa sey sëñ bi daal di tëggu loolu laa mu dëgg fekk ben sarax bu ndaw mo la ko mais am na ño xamé nak yalla mo leen may loolu nga dem ci kat bi mu ñëw xolal la naa man de borom sama sago nga def sarax nangam nangam nga def mu génn nga daal ci génn nit diggéey nekk ba mu lomp ak moom sarax bu mu génn yalla defal ko ci jàmm am na wala amul. effectivement dama ne sar day fànq dee. sar dafa baax soxna si sëñ gi effectivement nit war naa man a amee gàllankoor yi rëy ñu ne génne sar tantan ba ko génne daal mm-hmm. ñaari pàcc. effectivement nit nag buñ la wóoloo. Mm-hmm. jën mbir teg say loxo. def naa film bi li ñuy li ñuy génn sax xamuñu <laughs> joué nañu waaye xamu sa lu ñu joué lu ñu joué dafa am solo. effectivement dina dafa bari loolu ci suñu dëkk bi ñu ne. Mm-hmm. na nga wóolu nit teg teg dara ci loxoom xam nga ne ko jël yëfam da ko am defal ma nangam bi mm-hmm. kooku génne na bu ah, ñu defal ko ko mm-hmm. kooku nam ko defee moo baaxul parce que dafa waxee ko noonu mu jël ko fa daal koy moomu looloo indi gàllankoor boobu kon bàyyi leen bu la nit joxee am ci yéen kóolute jël alalam jox ko na la defal ma samay sarax nangam jëri yàlla ak yéen dee leen ko defee noonu suñu ko mënu nga ne ko ah, li nga may jox kat munuma ma ko mm-hmm. wala soo ko bëggee ñaan da nga may soxla nga ne ko ah man damaa na ma yàpp kat bu ko naan di gën a mag dibi nangam nangam dana la jëndal waaw mu gën nga nga nga nga sàggane ay mbiram ba ay mbiram mujj yàqu effectivement ba accident ba war ko caa fekk mu dem mujj ci ta dal loolu tam hôpital mm-hmm. te waroon a assisté doomam ci wàllu ci wàllu takkam am déet mm-hmm. effectivement kon ñaari pàcc la mm-hmm. nit ki su la wóoloo da def li la li nga xam ne moom la wóoloo waaye nit war na seetu boppam moom mère bu waatoon ci wàllu seetkat su delluwaatoon i seetkat ba dina ko wax ne ko carrément sarax bi génne mais dafa delluwaatu. dafa tënku rek. Mhm. ca la ko ndaw sa wax. am ci moom confiance daal. mu am ci moom confiance jël ki nga mhm. xam ne am na ci moom yaakaar mu jël affaire ba sax jox ko boobu la waroon tourné nag demaat ca kër seetkat mhm. bu ko xoolee dina xam ne sarax kenn génne ko normal. di ko ne sarax bi nga joxe woon kenn génnew ko normal moo tax sàggante baaxul. effectivement kay bu toogee ba ba ba ba ak diir. bu dee ci mbirum sëy la dama yër. ndax yàkkat yi bari nañu léegi. waaw ah. léegi soo xam nañu léegi. di léegi sa sëy macha allah duñ xam noo toogee yàlla may la sutura sa biir sëy ñu ne ma ngay am lu ne xaar ñu yàqal ko nga nekk sa bureau di liggéey ah ñu ne ah xale bi day daayi ay gis ngeen diw daayi li muy yor ak ah, oto bu bees génn ko ñu ne ah loolu du fi amee ma ngay tabaxal yaayam loolu du fi amee ñu jaar ci suuf yàqal ko ko amaana boo doon seetlu defar sa bopp kenn balaa kenn di lëbët dina jaar fu rëy mbaa mu def lu rëy effectivement wala sax yàlla mën ko jaay jaarale sax nga umu ja wala lu mu la def mu delluwaat ci yow loolu nag jokki sa bopp moo koy moo koy maye mm-hmm. ok jokki sa bopp ak xool sa bopp am na solo ci àddina mm-hmm. dëkk bi léegi toj na toj goo xam ne ku ku ñu naan ku yeewu na sàngalu sawtaan ngeen baal ma ci kàddu mm-hmm. noonu la fi demee saa su ne gis nga ñi wax sa seetkat yi seetkat yi dañoo bëri wax dañoo bëri wax noo fi daa accepté <laughs> waaw boo seetloo. Uh-huh. gis nga boo demee ci internet bi ñu lay njëkk a critiqué. Uh-huh. ñu lay njëkk a wax. maa la wax lii. loolu moom yàgg nañ koy dégg ñoom. ñi lay critiqué. Uh-huh. ne ci suuf di bind di bind li leen neex. bu nu paree ñoo lay njëkk a wax. bi ba xam maire bi ban façon nit ndax la muy wax nag mën na ko mën ko waaye bi maire bi ku ko testé xam ne testé nga testé nga kàmm. effectivement li ma yor foruma ko du ay foom. yàllaa ma ko jox. bàkkoo ma ko ci maam foofu chaque jour dama koy wax. bàkkoo ma ko ci li ma yor yàlla ma ko jox kon naa ci sant yàlla bu wér wér mhm. ñoo ñu critiqué chaque jour ñooy njëkk a woote effectivement ñu jàmbal leen ba mu saf jox ay galaaj seetal leen ba muy saar <laughs> maa la wax bi nañuy moytandiku bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy commentaire ci ci ci internet bi parce que nag la ñuy wax ak la ñuy jëfe ci suuf daanaka dafay dafay wuute bu baax a baax a baax mu mel ni fi mu toll nii nga xam naa ne sunu yaay jooju tëdd ci lalu hôpital saraxu bëy dong moo waroon na defar ay mbiram fi mu toll nii ca lal ba mu tëdd dana fa dépassé sax lu ëpp gilim mm-hmm. te xam naa ne ku leen ni woon tey bu ngeen joxee kër mu génn mm-hmm. ñeme nañoo joxe kër pour mu génn mais lii léeg dañuy gis ci wàllu sarax nit mu daan nag man maa ngi xëy di saraxe maa ngi xëy di saraxe maa ngi xëy di saraxe mais dafa mel tamit sarax tamit baax na nga dem ci seetkat mu seetal la ba xam lan nga war a saraxe d'abord maa la wax lii sama doom da nga koy da dangaa yóbbu sama lañ ci sax mhm. foofu laa doon bëgg a ñëw ak yëpp ngeen di génne sarax baax na waaye demal ci ñu saytul la ban sarax nga war a génne ok ngay dem ñu saytul saytul la mhm. ah ma ne sama dëgg sama borom kër nangam nangam coow ada caa am am na sarax boo xam bu ñu ko génnele coow la fay man ngaa yoroo doomi aadama nangami xaalis war koo fay te fay ko mhm. mu leer na koppar ko fayulee da nga ci problème ñu ne génn ci sarax temps temps temps dana fay coow li ba yàlla may la nga koo fay ay te ñu ngi koy waxal nag ñi nga xam ne ñu jub ñe la mhm. te def lu jub ñu ne ah defal sarax temps ak euh, temps mhm. boo ko defee coow li dana fay ba yàlla may la nga dem fay effectivement góorgóorlu nag nga dem fay ji nga dem def sarax coow li ne maa fay ñu naan waa moom lu mu def def ñoo sëriñtu fekk sëriñtuwu leen hmm. dafa am sarax bu mu génnee sarax boobu da lay da koy fankal ci lu bari bari sarax day fank ba fank dee nit mën naa dee tey am sarax bu mu génne yàlla kon bàyyi la ko mu dund ba at nangam kon sarax def naa dafa mu solo loolu hmm. te nag eh, doomi adama bu ne war na di ñaanlu ndax ñaanlu hmm. tamit dafa am solo ndax ñaanlu mooy wàllu jullit nit ku ne war ngaa ñaanlu sarax tamit ci wàllu jullit ndax sa sar yaa wax na ko nit ku war ngaa sarax effectivement yaa xam nag sax boo ci war a génne. ñu mhm. teg ko ci temps heure. mais sax dafa war a génn ngay seetlu di saytu sa bopp. di xool sa bopp bu dee ci bureau nga nekk saytu sa bopp bu dee ci nga nekk surtout ci liggéey mbooloo moo gën a garaaw. effectivement moo gën a garaaw sëy jigéen ñi léegi. Mhm. dafa metti da nga nekk ci sëy ñu ne ruuma naaj ci suuf di la liggéey di la borom sa borom kër ngeen ne xeexoo di rayoo wala bu la waroon a jox dootu la joxati. effectivement lépp lu koy waral def-def yu ci suuf la nit ñi dañoo soxor léegi noonu bàyyi gaa yi ñu sëy noonu bàyyi nañu ñu liggéey mhm. ku ne fa la yàlla fa la yàlla teg nañu bàyyi nañu ñu liggéey waaye defutuñ ko mhm. gars yi dañuy yàq comme dañuy yàq nag ba bañee ku la yàq góorgóorlu ki sa bopp effectivement kay jóg pour yàq la kii bu mu am pen ba ma jóg am ba ko di dem yàq la amal pen boobu ki sa bopp ba kenn du la yàq effectivement en tête fulaay day daqaar maa la wax lii mhm. maam suma bopp danaa fexee nag góorgóorlu ki sama bopp ba kenn du ma mën a euh, bëtt saraxam effectivement maa lank maa bañ ñi koy maye nag mooy nga jóg di def jàppale sa bopp jamono yooyu lañ toll de. kon mhm. ni ma ko daan waxee chaque jour. Mhm. sëñ Fall daana wax ni yal na yàlla yokk leeram doomu sëñ Tuubaa ji yal na yàlla koy yokk leeram wax ni. Mhm. dinañ tollu jamono yoo xam ne dégg dégg fi mu waxee. dinañ toll jamono joo xam ne. ku sanguwul doo set te ku takkul doo tekki. bu yaakaar naa li ma ko ci wax bari na lool. effectivement ok. Mhm. man du ma jël sëñ Fall wax ci moom loo xam ne xamu ko. moo ko daan wax. dana mhm. jamono jóg nag mu daan wax mu ne mooy jamono ji.